ndax da ngeen namm togg bu saf sàpp rafet lool ci melokaan bu sell seeni magi maaman yii dañu leen liggéeyee ak li ngeen taamu di safalee seeni togg ngir jox ko melokaan bu taaru bu amul fenn togg ak du aajoo nga siy def xorom togg ak Maggi defal sàmm tes <coughs> dem noonu ba ñëw <coughs> waaye sàmm na ñaar bëgg naa la koy gal hmm. sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndey moom moo la koy wax hmm. lu xew noonu kii ma dégg ni moom ngay waaj a du sa nawle te it nit balaa ngay takk kenn sàmm yaa ma gën a xam ne da da war a gëstu da ko war a seet dem ñu li sa xaar la ko xam ki nga takk moo kanam waaye xëy rek bëgg a takk koo xamante ni ki ñépp koy daw yow xanaa ki nga war a takk laajte woo ko. Hmm. waxtaan ngeen yéen ñaar. Hmm. sàmm xale yu yaa ngi fi xale 13 sa yeeg 15 ans yaa ngi fi nooy yàpp yaa ngi fi hmm. nga taamu kay nga xamante ni billaahi boo ko xamoon doo ca dugg moom est-ce que waxtaan ngeen yéen wax la ni moom fu amoon na ñaari jëkkër kenn ki dafa faatu. ci ay conditions yu anormal kenn ki dafa dem yoonam. yaa ngi may ndax jigéen boo xamante ne yow da ngaa denc kër ay manot denc fa ay buum denc fa ay xiir di te góor nii mm. les quatre kii ka ka ka les quatre points cardinaux l'est l'ouest le nord et le sud mm. di la taaw yi mm. ah dama lay wan rek dama lay dama lay wan rek nii lay def góor te bi ci gën a bon nag système bi gën a bon mooy day toog sa dënn te bis bu toogee sa dënn yow stop cardiaque da nga koy am nga dee jëkkëram ji mu jëfaatu looloo ko rey da ko pandar nii fàtte ko fa fekk boobu am naa kare kar jaa mu dem marché xaw fu mu dem ñëw fekk ca kër gi seen ndaw dee kaca des moom dafa dem ba xam ni lii mënatu ko supporter mënatu mënatu ko muñ ci lim koy def mu mu mu mu able waaw yow nag bu fekkee ni ñun say mbokk lañ dina la wax dëgg sàmm nit dafay seet moroomam kii nga bëgg a dem fee du sa moroom du sa nawle te boo fa demee lu la fa dal yaa sa bopp hmm. tës moo tax booy choisir tur de tànn tur wu baax dégg nga. naa lay déglu kay. tës tës ji nga nekkee nga def ni yow àdduna yëpp xëtën xëtën nga ko bëgg a def maa ngi ñëw toog sama biir kër di jàpp sama good time toog sama suufu ker di enjoy ah. nga xaatal xat et puis li gën a ñàkk a service ci yéen booy sénégalais yi yéen yéen yéen da ngeen di bàyyi naaj wu tàng rek ngeen di revendiquer du ngeen revendiquer mukk ci ker gu sedd lu ngeen di lijjanti da ngeen di ba naaj bu tàng ngeen bëgg koo lijjanti benn et puis yow da nga a def pédophile boo may boo may gëñax ci booyi quinze ans yeeg 14 ans yeeg 13 ans yi da nga sama kaso nga bëgg. loolu pédophile la. ah pédophile loolu pédophile magum dëmm mu toll ni man di doxaan ci booyi 13 ans yoo xam ni 14 ans yi fi pédophile la. loolu benn. waaw ah, engagé ah, man sax maa ngi ci ñett ñett. waaw ah, kon engagé ñeent. lu may doyee lu jigéen ju lewet luy sama yoon ci jigéen ju lewet wuyu laa bëgg bandi <laughs> jigéen day xajam bëri salañ salañ. kii xajamul dafa salté écouté naa. na bon. na ma monote na toog ci sama dënn na ma rey bu ma bëggee na ma rey maa ko jébbal sama bopp maa ko tay la sama yaram. Ah, na ma assassiné loolu laa bëgg man maa dundul dundu xamu xajamu jigéen ak wëyuteg jigéen ak bonuk jigéen ak bandi jigéen man loolu maa bëgg lu bon lu assassin man maa ko bëgg man jigéen ju assassin. kon yow da ngaa dem jënd sa percal ba pare. lëmas ko tee di xaar ndokku faatu ndokku jigéen jar na loolu. déglul yàlla na ma yàlla musal ci jigéen ju lewet yàlla na ma yàlla musal ci jigéen du naan mbapp mbappaaral ni xaat xaataaral rek mel mel mel mel estati Ablaye Wade bële sa tànk bi nga sama kër la nu ma neex laa koy déedéet doo ma jox exemple bi di ma di ma di ma lonk ay tànk déglu lay wax nag benn affaire gis nga yow Eh. da ngaa jéem sotti loo. fan laa jéem sottiw ma fan laa jéem sottiw ci xool jooy yëg naa ko anket naa la dem nga fa bul duul waxal hmm. ah jéemoo. Ah, ah, dem naa fa man kay dem très bien. dem naa fa kay ñu tëral ko waaw waaw. joomal dina dem fa. na fa. waaw léegi siiru leen. waaw léegi ngeen bëgg ma ma mel ni ah, mu lakk ci taat bëgg ma. léegi nag looloo tax nag waroo caa dem. waaw lu tax jommal jinne war na caa dem. waaw man ma dem ja. waaw yow nga engagé ko. waaw yow kon an sa dara ci ngor doo ko wut sa digganteeg yàlla sunu deset ngay jël sa digganteeg yàlla sa digganteeg yàlla yàllaa ñu tiim ak yonent yàllaa ñu tiim mooy dama ni ku dee sa bàmmeel waaw mës ngaa fóon mës naa fóon kan fóon nga fa fan foofa eh. eh, wax rek fóon nga fa eh, fóon nga fa bokk leen day bokk leen bàyyi musu leen sëy ba ma essayé naa réussir naa yéene leen ma ko mais yéene leen ma sama réussite Sénégal bàyyi leen bu nit réussir ngeen iñaane ko jërëjëf bu dee ci jigéen nga réussir ak kuy rey ay góor laa la la balaa fa daa daa fa balaa am lu ma neex ñu ñëw tàgge ma la. ni sa waa ji dem na eh. faatul na. caya ah. moom bis boo faatoo dinaa leen wax ni waxoon naa ko lii mieux vaut prévenir que waa kay balaa maa ma ah. neex ñu woola ni la sa waa ji tuxu na ñibbi ah, jeex na euh, xool jooye ko yóbbu. du jar jar na jaral na la ko. <laughs> baas yi baas yi jéemoon nga fa de. waaw delloo ma buntu kër gi dama ko soxor la ñaan nañ de jéem fenn réussir oo nga ni keneen du fa jéem jéem jigéen ñii pour la pour jigéen ñi lañ yàlla wàcce wuñ fi pour ñuy xoolante mais nag euh, nga keroog. alaaji ak soxnaam si ñu may wax ni li li ciy ñuul li ciy ñuul li ciy ñuul ah jigéen sax foofu mu am lu ñëpp am sikk ki ma yor te gën a bon ñëpp te ngi ko muñ at loolu foo ma lijjanti ko maa ngi gis sama waa ji. Bousso. lan lan lu xew ba nga sedd ni. sama yaram bi dama sama yaram dafa tas. mënuma dara dara bala néeg sax mënuma ko ndax sama yaram yi ma ko jeex. da ngaa feebar wala da nga doon liggéey ba ba sa yaram di métti te ngaa mujj anam sax. loolu kooku moom ma wax ay waxam kooku nay aw ni ma aw nii léegi dékkee ma moom jeex na tàkk kooku ay waxam si waaw rek lay lay lay lay def. bënn ma defal ma def bënn ma bàyyi ma bàyyi man kay ay waam rek léegi laa dégg dañ maa dóoru dóoru dóor moom benn xaritam boo xam ne ko ponkal dañ maa dóor ba toog sama kaw moo tax sama yaram bépp métti. yow yow moom rek moom rek ëpp na la waxatuma keneen nga ne ma xaritam bu toll ni moom lu tax yóbboo leen police ah bu la reyoon du yaay perte yaa ñàkk fayda ban léegi moom bu yeboo rek nga pare yow. man nii. yow kay. pare. pareel de. sama yoon da cee ne ba ma pare. <laughs> xaritam boobu xaritam boobu lan koy waaj lan lañuy waaj a may biir ma xaritam boobu ponk lañuy waaj may biir ma bii ba nga yow nga pare rek te togg say kel ak say saxaw te xam ne yow dana la jàpp. man mii man mii sàmb man jéeg du dóor hmm. jéeg ba may dóor juddoogul hmm. maa la wax li amagul bulletin de eh yow loolu yow lañ koy def yaa tuuti seen kanam oyof seen kanam ba ñu àttan la waaye man man a jege na jàkk ba di ma yëkkati walaay dina am sant hmm. man rek. loolu nga wax de. waaw baax na loolu nga wax de ñooñu de ay ponk lan de ay jéeg pilipu jéeg la te wax naa la ko rek buñ ma yëguma ko damaa bañ bett te buñ la bett loolu rek laa la mën naa baax na. bu ñu ponkalee mëpp leen xel. maa ngi ak samay xeeti technique yoo xam ne. na ñëw te fekk na fi rek ndax la jàppee ni ma dóoree loolu lan lay dóoree. <laughs> naa la ko daa pare de pare ay capable lañ ay koobay wax naa la ko rek maa na ñëw ba fekk ma fii xam nga ni yow la ñuy yow la ñu xool nga tuuti seen bët waaye nag mën na ñëw ba jàkkaarloog man mën na yëg seen jàmm ci biir kër gi rek ba ñu bokk biir kër gi bokk perong bi ñu ànd ñu ñaar ku ne ku ne di njàpp ci lay xam kan maay kan man dina xam ni jàng sew na waaye danga ah. ah. nag moom seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. man soxor gi nekk si sonak Sénégal moment yi moo ma jaaxal. moo jaaxal moom nit di soxore moroomam nit di waaj a dugg si jabar. nga ne ah. ko baaxul dafa ay gaaf. ah day ah. dóole ah. xoolal ah nee nañ ma sax daa yor ay monotok yooyu yëpp wax naa la ko. monot yi mu yore yooyu. nit ñi dañ laa soxoree rek. bëggul ñu la jàmm man li ma bëggal kii moom laa la bëggal. waaw yaa ngi dégg. leen oh, oh. lenn nga war a commencer di def. Hmm. di entraîner. Hmm. bu baax a baax. waaw lan la noonu. waaw lan nga ciy laaj entraînement moom day gaañee wala lan la. non non gaañee sax man li may defaree kii moom la lay defar xam naa ko parce que maa moom ñoo bokk. Ah, même man ñu may takk. di toog sama kaw ak yooyu laaj. Eh, voilà kaa ma wax la fiche technique gu ndaw si. waaw ndaw si amoon na jëkkër. waaw waaye jëkkër ji dee naturel la daan nu ma déedéet eh, eh, daan nu ma dafa toog ci dënd bi mu. dégg dégg xoolal lay wax yëpp dara amu ci. keneen ki ñu ni ma daa daw. te dëgg ko nu muy mën a rey ni di toog fii di dund. keneen ki daa mu demee ci biir wax sax dégg naa dañ kaan naawtal. merci ñu xañ ko jabaram merci mu dem toog ñetti weer. defe naa ah sama njàng mu gàtt lislaam tas na sëy bi. tas na sëy bi yàgg na mooy mënul toog fii rek. waaw kon daal yéen li ngeen bëgg a wax nii risque amul. amul benn risque xoolal boo tëddee. yow jàmm laa la yéene li ma ko yéene moom laa la yéene moom la ma lay def lu ko raw laa koy def moom mii bu la ko waxulee man ne damaa bëgg bala muy dugg mu xam ñaata kilo la bu dawee trois mois moom dina xam ndax sëy bi dig na kaam jig wala jig ko waaw xoolal bu dellu ginnaaw Youssou Ndour nee na bul déglu bul toppatoo baax del sóoraale rek entraînel la waaw baax day def entraînement bu baax di di yëngal di kii kii waaw kii waaw voilà voilà waaw yooyu ngay def. alati ba muy bëri dafa am at bi at mais yow da nga da nga wér ñañ la dem mat dama day mat ngay gis dama day mat gàllal bee baax am lu ñu yëg ci yaram mais hmm. li baax moo am yow xam nga ma xam na day hmm. dee non du dee day dugg dans le coma rek dans le coma waaye hmm. xam nga du doyal ndax dafa mel ni yow sa xarit laa wax du doyal ah man nit du ma doyal laa ilaha illallah xool jooy mortul li kii nag yaa ngi man sa jooy yi nga doon yooyu yëpp dafa maa soof tey la ma sa jooy yi di gën a neex pleur pleur naan laa ilaha illallah xool jooy bi ma duggee ci kër gi ba jàkkaarloo yow xam nga sama xel xam nga sama xel si lan la jëkk a dem xam nga lu ma njëkk a dem sa chaise anglaise yow bëgg naa xool sa biir néeg dugg fëyete sées anglais bi xool nan ngay toogee laa ilaha illallah motuli nemmali ngéwal ceeb bu neex ngéwal ku am feeling ngéwal ku am paaj ngéwal xam nga ni euh, bëgg ta tax a bëgg a gan taxuta mën a am ci gan yi uh-huh. bu doon tax am ci gan yi chef de gare kenn du ko ëpp gan waaye maraaka jiit naka jiit dina fit gis nga olof Njaay lu mu lépp dafa ne dëgg la nee na yàkkamte ak gaawtu bu ñu juree doom rek réccu da am. réccu da yoon. xool jooy. dis-moi qui tu veux te dirai qui loolu lan la. la loolu yëpp daal ay jax kii moo ko waral. xool jooy. na ngeen def jëm yàlla. ñoo xool jooy réew mi bàkk nañ la àdduna bàkk nañ la. Mhm. da di doomi géwél di faramàndir pire da war a xuppi sa bët. te xool bu baax. yow war ngaa ànd ak ku ne. waaw ba mu des ñenn ñi. eh yeggal ba ci biir wala bala moo geccax noo gisee yàpp file fu file bàyyi fi loolu yëpp ginaar boof jël keccax ñun say nawle lañu bu ñu gisee luy jóge ci àll ba ñëw di la gaañ dañuy taxaw protéger la te mortu moo mënu ma la wax dinaa la wax lenn ah kii réew mi dañ koo naw ah, waaw keroog bi mu nee cop ba xër ñëpp. laa ilaha illallah. jóg Samba Kumba Ndiaye ka teewoon micro central ba njëkk a daanu. ñëpp xam nañu. ba léegi may wax nii. alaaji dërgën ni bërët. Abdou Mbaye changé changé yat bi mu doon dëggee naka te jël na portable am di ko dëggee téye ko. kon loolu yow c'est la magie de ton corps qui a fait ça pour les griots. la ba tax ni waaw. non nu mu la dàqee daw. yeggal leen yow yegg leen. waaw waaw dëgg la gis nga ki nga topp. bu duggee ci yow. lañ naan pomm góor pomm moom ñàkk la ko. mënatu ko mënatu ko de. moom day xool day amortir rek daal di paas. mënatul dara dara muy jéem a sagal boppam. day jëfandikoo day jëfandikoo yenn muy jéem a sagal boppam naan day takk deuxième femme te ak yi mu la déclaré ne moom la am. balaa ngaa xam ne romb na at yooyu 60 la la wax kii mi ngi ci 95 ans. barke yow ak xaarul akbar xoolal ah. Ablaye Wade. Mhm. jour bi mu njëkk ni cëpp Sénégal. waaw mi ngi woon ci ña koy topp. dégg nga lii te Ablaye Wade à 99 ans. waaw moo ko magee 2 ans. soo dee liñ lay wax carte d'identité nationale du fen bu tee nee ko keccax man naa maanaam nga ne ko alma sa carte bu la ko joxee xool jooy dootuma jooy ci Sénégal li mu bëgg wax daal lenn la doon lay sauver. dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd. te kii du dërëm ak dërëm kii dix mille dix mille la. ñu ñooy dix mille yow ngay dix mille lii daal loolu fi indi. góor jeex kon daal lay saan kon lii la lii la gun gun ko gun gun kat gun gun ko gun gun kat. Eh! lu tax bu ñu ne ngénte la neex na da ngeen di daj baal nit. ah parce que. Eh! da nga naan tàcc su may wax yow. li ngeen di wax seetlu leen dama leen a may part ak organiser di leen déglu leen daal nii rek kan mooy dix mille la dix mille leen ñii man xale may dëkkuwaay maga may daal là où je passe je laisse des traces ma ñamu xale eh sigil nii dima xool du ma ñamu xale je suis pour les petits là ah non non yëfu VIP laa yëfu mag laa du ma yëfu xale yéen nag xam nga lu tax seen seeni mbir sa ci ci koñ bi nii dama leen a seetlu mën ngeen a duul. Eh. mën ngeen wax lu amut. ay eh, yéen ñaar am ngeen fit man ngeen a dem fu ñu leen woowul tey ngeen a roy ci magu géwél yi. duñ dem fenn fu ñu leen woowul yàq ngeen seen bopp. waaw man paa ma saf hmm? paa ma ñor paa bee ma ñorul dama koy récupérer delloo ko ay vingt ans sang ba set raxas ba mu jekk déggoo ma ngeen ne demul mënatul tiire dama koy puus muy tiire mënatul joxe paas joxetul bal sa jooy yi ngay jooy um nga ñëpp man mënoo maa um ba may jug jugoo man boobu doxat fekk na ma ngeen boobu yaay ba ma la séenee say maraaki sur rose. sa yoon nekkul. Eh, eh, eh, may ma sàmm xane di mel ne pas sàmm. ay maraaki sur wax ji du bari sax da ngeen di jug. ci biti. yow ni mu la ñëw a duul dox. yéen ñoo ngi saaga. ci biti ci biti. ñoo ngi saaga de. ci biti. espèce de n'importe quoi yi ngeen doon. yow rombal fii bala fi def. waaw man waaw eh. yow. sama ëppukaay moo yow mel ni jaal yu baraaye bi. kàddu yow jaal yu baraaye. ngeen mel ni jaal yu baraaye. seen dara saf ma seen i mbaxane soof man dóol seen jikko dafa yabaate. ngeen defe ne man da ngeen di ñëw di ma ruube ak di ma soroxo soroxo paa boobu nga xam ne toj na sabar def fa fa saf naan ñaafal ñaafal ñaafal ñaaf barkiwutu sama sinap bi yàq sax moo ma énervé man ma toog sëñ sa ba jekk na la sinap ba mu neex yow génn kër jàmbu ji eh! lépp ak yow lan la lépp ak man ci lan waaye yow yow la kay waa waaw mais man nan la ñu ngi dugg ñu xas ñu nga li ma la bëgg man. di leen xas sama soog colke gi lan la ah. lan moo nekk sama colke bi. lii nga sol nii ak lii lu ci ànd ñuy football Asie asiatique Europe Afrique lépp mosoo gis ku sol kawas yu mel nii. xoolal mosul am dimbali ma déggoo mu la jaan bu braaya. yow la ko wax di jaan bu braaya yow mii la ko wax. lu tax nga ko. waa yow mais xoolal li nga solo. ay yow yaa ngi te barke Seydina Mouhamad saaga yi ñu doon saaga. man maa noppi rek. waaw dañuy def nag force de résistance. gis nga bu ñu ko dóoroon. waaw dañuy am problème. waaw waaye dañuy ñëw ak résistance. lu ko fekk reculer pour mieux. mooy da ngay duul pour mieux sauter. moo tudd doo ma bàyyi ma doo ma bàyyi ma sànni kii ay xeer. ay ay eh, eh, bàyyi kii

tooñ de wujj neexul waaw waaw maalo waaw kuur gu baax bu dëgër laa bëgg bu diis waaw waaw waaw waaw cëm balaa man asamaan balaay taw ñuul kaaba ga daa ñuul kon korndama korndama wala korndama waaw waaw korndama yow jigéenu talaatay ndeer ya seen jëf ja jëf nga ko ci kër gi fii kokotu nga fi caraxu nga ko fi dégg fi kokotu doo fi jotal maanaam kiis grand boobu nga fi waaye yow yow kii yow lay waxal di la bégal di la ka waaye xanaa nga mën koo muuñ ko ah kii nag loolu sama kay fas sakalam nii non kii dafa bëgg yëfu chawage waay ak yëfi woyu bàyyi ko ci sama dëggante ah i rafetul waaw black diamond oh. alaaj toogal toogal ah man de Samba xam nga ba ba suba ba tey maa ngi toog dama toog baax na waxu hmm. waxu kii nee na da laa ngi nii maa ngi laa koy soxla te te te duma ko wax li ñu waxante woon waxoon gunge ma bu leen ko gengee jaru ko hmm. ba ngeen amee fitu def ko bu leen am ragal di ma ko wax takk jabar loolu amul benn problème man li laa doon ñaan yàlla ay bokk ko laa bëggoon bokk ko ay binta yow jafe nga si jigéen ñi ay binta ay binta wutal nga sa bopp woy eh teeyal de eh, waxewul xolam bu rafet am ah, kay kii day affiché endo dawal kobo yi bàyyi jàmbur maa sëy moom maa ko xam yéen góor ñi wax gëmu ko yéen góor ñi yéenay monté seen jabar yi xanaa kii ku ko xool yow ma ne di nga tax ku dënn adduna bi yépp sa jëf ci dinañ ko def ni taxal na nit mu soole jëkkër ji pes xar su jëkkër ji waaye li nga ma wan tey eh e eh, fi ah. sa jëf àgg rek sama wax dina fa àgg ndax sa jëf ji ah man kay jartu ma fi def dara département tey maa gata tey waaw dañ koy bokk dégg nga te gis nga kii damaa bëgg nit ñi xam liñ may de may defal xam nga fu ma lay yóbbu émission émission émission wareef ndax sa jëf ji foog nga toog télé TFM wan ko adduna bi yëpp yow tëjal sa gémmiñ gi li nga wax xamoo ci dara yow wala wuti bokkoo ne ma xam nga lu ma yow dama lay dóoraat maa ngi xaar maa ngi may waxat ak sama jabar ji nga siy dugg lu sa yoon li may wax gëmu ko R4 ba ba ba 4-4 ma ñu loolu moom ci kër gi. Ah, am na droit 4 femmes la waaye am naa droit 4 femmes moo tax sax naa. dinaa la yëgal benn affaire ci nga sa jëkkër signalé gauche jàpp droite yi may ma rek alaaji. baat ki rasulullah gis nga ki ma takk moo la gën a costé. mu wutal sa bopp noonu. moo la gën a costé moo la loo moo la eh, eh. dana la doo toog si sa kaw yóbbu la réanimation. Hmm. man da ngay jaay wëyu ak bandi. di nga xam ne yow wutal naa la kacapan c'est tout man pare naa ci nag. wutal nga sa bopp noonu yàq nga diggante bi oh yàq nga relation bi. dégg nga muy yàqu oh, oh, dégg oh. billaay bu ñëwee dina xam ne jeeg la fi fekk man duma ci daw saala yaay ndeer man ma fee sans place man ngay wax de maa fi nekkoon bi fi dara newul bi àll bi ne ŋàpp kenn ñi fi man mi maa fi xus jaal fii sama territoire na ñëw